رحمة للعالمين سيدنا muhammadin سيد المجاهدين وعلى آله alihi أجمعين مبكي ajmain سيران julli ñu seetaan ci travers internet JSPM TV ñu ngi leen di nuyu ci réew mi ak ci bitim réew di leen دي di leen ndokkeel ci bis bu tedd دي di guddi gu màgg gi di ajuma di seydul nga xamne ñi nga dëtmal suba aljuma xamne moy gën ci bis sallallahu alayhi wasallam sallam mu ne ajjuma mooy seydul ayyaam kon ñu war a dëtmal li nga xam ne mooy bu ajjuma passé di ziyaara ku wax ziyaara sa xel daj kër maam alxaaji Abdoulahi Niass ku wax ziyaara sa xel daj kër maam xalifatul xaaji Mouhamad Niass radiyallahu taala anhu ziyaara bi nga xam ne ñu ngi ko sosoon ci 1922 gannaaw bi maam alxaaji Abdoulahi laqoo nga xam ne maam xalifa ak ay rakkam ñoo fi nekk ak muqaddam yi مام شفيعو راك مام خليفه نيو نجابور جي نه اه نون نك باي داف نيو بايي ماجو مات باي ماجو ماجو مات تاو موي مام خليفه الحاج محمد يلونا نيكوي زياره زيار بوم نك نيكي سون 1922 في تي لاونا ني سن nga xamne ñuy ziaré mam khalifa ah, nak talibé euh, muqaddamé ba 1959 bayiko fi alhaji abdullah niass khalifa taw mam taw mam khalifa ñëw ñeuk a juddu ñeuk a baax alxaaji mu ndaw ki nga xamne ne alaaji dañ fe bëri won makko waye mu nekk alaaji mu ndaw waye nak xam-xam ba tabarakallah don sha'ir nga xamne ken kenn du ko laajte mu tok fi 59 ba 91 muy ju borom alxaaji babakar borom xel kom jaaga borom jinne borom fas loli ñewutuko ci khilafa gi liggéey fi liggéey bu am solo nga xamne ken dotu ko laajte way bim fi jugee ko 96 alhaj Omar sama turondo borom allah akbar assalamu alaykum borom nga xamne léppam moy sunna yonente allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam wutuko ñukoy ziyara ba 2009 ah le grand baptiseur alhaj ibrahim Niass nga xamne mo mo yok jumaaji yaatal bayal bi tabaxti bi borom siru siri toog ba 19 ba ba 2017 muy muy muy ji boromam ah yàlla yàlla yokk seen latan seen barke Baye Cheikh Tidiane Niass ki maam Khalifa junjoon ne waxoon ne yaa sayidi inni abdun li abudikum wa abdukum fil baraawe sayidul ubudi wutu ko ci jal bi ñu koy ñaanam yàgg fi loolu te ànd ak wér waaye buñ ko nuyoo ziare ko ziar a Mouhamadul Arabi Niass di imam ratib grande mosquée bu lew waaye nuyu Euh, ki nga xam ne moo mag si euh, sët yi alxaaji ahmed babacar waaye duñ fàtte nag gayndeg pays bi mouhamad ibrahim nga xam ne dama naan ah jàmbaar la de bu ko penc mi amutoon ah uti ko ñu leen ñaanal yàlla yàlla yokk seen fan di nuyu mboolem seen rakk nag ñi ngi fii ci xadara bu lew nañu seen kër maam xalifa war a def émission bu mag ak borom xam-xam bu mag ñu naan ko cheikh mouhamadou nasiru ah muy ah, borom xam-xam nga xam ne yaakaar naa ne penc mi duñ ko laajtee taalibe duñ ko laajtee daayir duñ ko laajtee ale bi duñ ko laajte waaye borom xam-xam yi duñ ko laajte nga xam ne mooy najlu Muhammad doomi alxaaji Muhammad Imaam nga xam ne mooy gaynde pays bi si kanam tuuti dañ si ñëw waaye dañ koy ubbil ay zikar ndax penc mi zikar nañ xame tey nag moom cosaan laa jëm. إيدي إخا إعداد إخيار إليخ إلى وليا إلى إخا إعداد إخيار يا قيادة يا قيادات يا إلو غوز البرية مفتاح الولايات سيق تجاني مصباح الدجانات ممد عقتاب أهل الله أجمعهم من الفتوح لأرباب الفتوحات لون فراد بأسرار يقوس بها بين الخلائق في أعلى المقامات حباوتها بما لم يؤتي أحد من الكمال لأرباب الولايات من بعد ما حازم ما من سرف وفاقهم بزيادات عديدات سالو سجية مامون طريقة مقصود الخليقة في كل المهمات لو تصرف في الأكوان أجمعها كذاك تربية الأرواح وزاتي يفيد من بار إلفان لو مراد من فرد بأسرار سنياتي زور بابه إن تكن من لحرارته فإنما بابه باب ساداتي فالمصطفى بفيود سير خالفه فهو الخليفة في كل البريات كما ما في الكون من أنوار مرأة أما لنا سيب كل الخليخات لو من الخنم أعلى رتبة سما أخت جميع الأختام من ماد ومن آتي كم لازة من للأرواح جاذبات في لم ترفد إلى نيل الكرامات توي الخديم الرميم القلب لازته من لي بلازته في كل لازاتي بالنور والسر والفيد العظيم وبالجاج القوي وتأيين العنايات yaakaar naa ku dégg bàkk Seydi Ahmad Tidiane Chérif boobu nga xam ne maam Khalifa mi ngi ko tagg sëriñam waaye sëriñu sëriñ si muy Cheikh al Masaayix yi ah kooku mooy Seydi wa Mawlaay Ahmad Tidiane Chérif al Fatimi nga xam ne mooy góor gi juddee ah ca Algérie aynu maadi waaye góor gi nga xam ne